waaw jërëjëf euh, li may njëkk a def mooy vraiment jaajëfal waa esprit Y de Thiès euh, ci euh, organisation bi ñu organisé caravane bi et puis ñu dalal ñu fii xatoon na lool ndax jëpp gis na circonstances yi ñu annoncé datu élection yi pour le 24 mars donc di leen ci jaajëfal bu baax di wax aussi ni mouvement Y en lancé na démb fële ca Ndakaaru quartier wu Pikine ak Géejawaay programme bi nga xamante ni mu ngi koy duppee jëli sama carte ngir mën a wote liñ ci jublu nag mooy fexe ba euh, citoyen yi nga xamante ni ca njëkk yor nañu seen i carte électeur ñu bañ a fàtte ni dimanche incha allah le quatre mars dañu war a xëy ndékki ba suur sañse ba jekk euh, dem ci bureau de vote yi dem voter ndax euh, vote élection c'est une fête de la démocratie normalement c'est censé être une fête de la démocratie donc citoyen yi dañu war xëy ndékki su dem fa tekki bon xëdd voilà ci koor la ñu nekk d'ailleurs voilà merci beaucoup xëdd dañu war a citoyens yi dañu war a xëdd ba pare bu ñu xëddee bu jarul sax ñuy tëddaat waaw nañu daal di sangu rek sañse xëy dem voté ji mais au-delà de catégorie wu citoyen yooyu mais am na ñi nga xamante ni bindu nañu ci liste électorale yi boobu ba tey demuñu jëli seen i carte ñu jàpp ni am na solo ñu wax ak ñoom pour que fii ak dimanche ñu xam ni fii ba dimanche am nañu euh, sañ-sañu dem ci mairie yi ak ci préfecture yi pour dem jëli seen i carte d'électeur pour que ñu mën a voter loolu am na solo du moment où gis nañu au niveau national boobu ba tey ci dernière inscription yi ñu def ci liste électorale yi citoyen yu bëri demuñ jëli seen i esprit Y en de Thiès mu ngi ñu wax ni en terme de retrait euh, ci chiffre yu ñu leen jox mooy Thiès ñu ngi à 55 pour cent de retrait loolu c'est juste la moyenne ci ay élections yi nga xamante ni citoyens yi dañu war a participer massivement pour que élections yi mu crédible loolu néew na moo taxoon ñu ñëwoon cees vraiment pour euh, wax ak euh, citoyens yi wax ak ndaw yi nga xamante ni ñu ngi soog a bindu pour que ñu fexe dem jëli seeni i ñu mën a voter bu bis ba bu ñu voter nag ba pare amul voter dem tëddi nelaw dañu war a voter ba pare veiller à ce que jalgati bañ am veiller à ce que scrutin bi mu transparent veiller à ce que kaddu yi nga xamante ni sénégalais yi dañ koy jibal à travers seeni carte électeur mu doon li nga xamante ni loolu mooy ne à la fin de la journée ci loolu nag am na ay information yi circulé am na yi nga xamante ni mu ngi teyal xel ci yenn bureau fictif yi ñuy wax ah ci yenn euh, nu mu tuddati ay abri provisoire yu ñu kii ak yeneen ak yeneen ñu ngi koy wax et c'est là qu'on interpelle nag ministre de l'intérieur bi nga xamante ni ñu ngi koy soog a tabb Matar ndax ak li xew ci Sénégal yëpp ci mbirum élection yu ñu toxal li ci am ay manifestation ba ay bakkan ñu rot ci yàlla def moom mu hérité du ministère de l'intérieur muy jeune war na xam ni sénégalais yi waruñ ko gën a gore il a un vrai défi c'est d'organiser ay élections yi nga xamante ni buñ ci génnee rek Sénégal yi yëpp ne gongo communauté internationale yëpp ne gongo démocratie wu Sénégal gën di taaru drapeau wu Sénégal gën di di di di flotter en Afrique et partout dans le monde comme une référence euh, démocrate voilà merci euh, beaucoup. peut-être euh, benn question wala wolof euh, violence bi ñu commencé noter fan yi si campagne bi. Y'en la marre lan moo ci xalaatam. Y'en àndul ci violence àndul ci violence àndul ci liy yee violence. campagne électorale dafa war a doon moyen bi nga xamante ni candidats yi dañuy jongante ci seen i xam-xam ci seen i xalaat ci seen i pas-pas pour Sénégal ak seeni i yéene pour Sénégal ak proposition yi nga xamante ni moom la ñu defal sénégalais je pense que ci loolu la ñu war a di jànkonteel di jongante mais pas à travers la violence électorale amul njëriñ fiñ ci toll ci élection lañ jëm à la ci li ñu foog mooy dimanche dina am voté voilà ci fi ñu toll nii nit war na tal leneen lu dul ay dóorante ak leneen dañu war a wax ak sénégalais y convaincre leen pour que bu dimanche ñu mun a votel au candidat bi nga xamante ni il les aura convaincus ci ay argument voilà. merci merci beaucoup. merci beaucoup la première chose que je vais faire c'est vraiment de de remercier l'esprit Y'en a marre de Thiès qui a bien voulu euh, accepter d'accueillir euh, cette première étape euh, de euh, cette campagne ah, très très importante Euh, dénommée euh, Jëli sama carte ngir mën a woote une campagne qui a été lancée hier à Dakar dans les quartiers de Pikine et Guédiawaye euh, aujourd'hui nous sommes à Thiès et l'objectif c'est de progresser demain aller vers Diourbel ba Bambey mais aussi faire Kaolack Kaffrine si on peut faire Saint-Louis aussi on le fait avant de revenir sur Dakar et l'objectif de cette campagne citoyenne Jëli sama carte ngir mën a woote c'est d'inciter les citoyens, pour ceux qui ont leur carte d'électeur déjà, qu'ils gardent bien leur carte d'électeur et que le dimanche, le jour du scrutin, qu'ils puissent voter massivement. Et l'autre euh, catégorie de citoyens, c'est ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales dernièrement et qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur. Leur dire d'aller retirer leur carte pour pouvoir voter le dimanche 24 mars à ces élections qui sont super importantes pour la démocratie, pour l'avenir du pays, pour l'histoire du Sénégal. Donc on pense qu'il est important que pour qu'une élection soit crédible, que le de participation, le niveau de participation soit important. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Je pense que euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour la tenue de ces élections-là. Mais ces difficultés ne doivent pas endormir les citoyens dans leur volonté et leur engagement à s'acquitter de ce devoir euh, civique qui est l'acte du vote. Donc c'est pourquoi on a lancé cette campagne, pour vraiment parler aux citoyens, les sensibiliser, les amener à faire ce qu'il faut pour le dimanche, qu'ils puissent voter. Et déjà, l'autre Euh, on est à Thiès ici parce qu'on sait aussi qu'en termes de euh, niveau de retrait des cartes, euh, l'esprit Yanamar de Thiès nous a informé que nous sommes à 55% de retrait, ce qui est quand même, euh, c'est la moyenne, juste la moyenne, c'est relativement, relativement faible. Et pour qui connaît Thiès, on sait quand même qu'en termes de, euh, de pôle électoral qui regorge en fait en termes de nombre d'électeurs, c'est important euh, au niveau national. Donc c'est pourquoi on a pensé qu'il était important de venir à Thiès euh, de commencer par ici et de pouvoir parler aux populations. Mhm. Euh, en tant qu'acteur important du processus, puisque quand même vous en tant qu'observateur, Est-ce que vous pensez qu'on va vers une élection apaisée, transparente En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ce soit des élections apaisées, euh, que ce soit des élections transparentes aussi. C'est vrai qu'il y a des alertes qui inquiètent par rapport à la carte électorale, par rapport à des habits provisoires, par rapport à des bureaux fictifs. Il y a, il y a, en fait, il y a des inquiétudes. C'est pourquoi nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur nouvellement installé, lui dire qu'il a un vrai challenge le challenge de pouvoir organiser au sortir de tout ce tourbillon qu'il y a eu avec le report des élections et tout ce qu'il y a eu comme manifestation des citoyens et même des morts qu'il y a eu, euh, qu'aujourd'hui il hérite du ministère de l'Intérieur et organiser ces élections-là. Nous l'avons à l'œil. Et euh, nous, tout cas, la société civile et même la classe les moyens de pouvoir contrôler ce scrutin-là. Euh, D'importants dispositifs vont être en place par euh, des organisations comme Yanamar, le F24 et même d'autres euh, forces de la société civile. Mais la classe politique aussi fera le pour euh, contrôler ce scrutin. Et c'est là aussi il faut lancer message aux jeunes. et aux citoyens globalement. L'un des messages de cette campagne, c'est de dire que c'est vrai qu'il faut voter massivement, mais il faut sécuriser le scrutin aussi. Quand on vote, il ne faut pas aller dormir, il faut sécuriser le scrutin jusqu'à la fermeture des bureaux de vote et euh, jusqu'au dépouillement finaux. Donc c'est ça le sens de cette initiative, de cette campagne citoyenne. Aujourd'hui on est à Thiès, demain on est dans la zone de Djourbel, Bambey inchallah. Mhm, si si wolof coordonnateur euh, Sane. waaw euh, déjà di leen jaajëfal ci seen teewaay. waaw di di wax ni li ci yaramaar wundu mooy euh, encourager population bi ñu dem jëli seen carte seen carte électeur parce que suñuy wax démocratie euh, mooy euh, un nombre important manaam ñu ñu ëpp ci ci ñun sénégalais ñu mën a dem participer à ci ci élection yi ba tax na ñun à chaque fois que élection yi ñu koy dëgmal dañuy def campagne bi Euh, pour wax population bi que ñu dem jëli seen seen carte électorale surtout lu am solo la lu am solo la parce que démocratie mënuñu ko wax fii ak ñu ñi ëpp ci ñun ñun sénégalais en tout cas ci ñi ñi ñi bindu ci fichier électoral bi ñu mën a dem euh, ci ci élection yi. situation bi Thiès. waaw Thiès euh, léegi la ñuy wax ni à la préfecture que cinquante cinq pour cent ñoo jëlagul seen carte électeur Euh, déjà ñoom sax ñu ngi ñuy wax ni nañu nañu nañu davantage participer ci sensibiliser population bi pour que ñu ñëw jël seen carte électeur yi balaa balaa élection yi. bëgg ngeen élection yi Sénégalais yi vraiment participer si en masse défi de la participation ñu relever. waaw waaw défi de la participation lu ñu bëgg la ndax euh, euh, Sénégal bu fekkee il y a sept millions et et poussière ñu bindu ci. Euh, ci ci liste fichier électoral bi yaat y a trois millions cinq cent et et poussière ki ki euh, ñoo xam ne dañuy toog seen kër. du ñu dem waaw genn wàll gi daanaka du ñu du ñu dem ci ci dem voté ci élection. et que loolu nombre la boo xamante ni euh, dafa xaw a yaatu léegi nag démocratie moom mënuñu ko wax fi ak ñu ëpp ci ñun demuñu. demuñu ci ci élection yi moo tax euh, ñun yanamaar duñu duñu sonn du ñu tay ci wax population bi en tout cas leen que ñu dem jëli seen cette carte électeur yi. merci merci. Euh, donc euh, le mouvement Yanamar a lancé sa campagne euh, pour inciter les populations à euh, au retrait des cartes électeurs parce que euh, pour nous, c'est une manière de participer au, au processus électoral. Et parce, euh, parce, que le mouvement est, est parti d'un constat. On a vu que euh, le fichier fait 7 millions de, de euh, et, et, poussière de Sénégalais, alors que 3 millions 500 ne vaut pas aux urnes. Seuls 3, 3 millions 200 euh, euh, votent souvent pour les élections. Donc, Et cette situation la on a jugé que c est, c est, ça, favorise pas le, le, le changement. C'est pourquoi on a initié euh, cette campagne d'encouragement euh, de, de, de, des populations à aller retirer leur carte électeur euh, pour, pour un vote utile. Autrement dit, le défi de la participation, vous voulez le euh, relever donc c'est un peu ça, parce que relever le, le, défi de la participation est, est, est notre credo. Euh, parce que souvent, dans, euh, lors des élections, on constate que beaucoup de gens ne participent pas. C'est-à-dire, ceux qui ne décident pas sont, sont, sont, sont est, est, un homme un peu, un peu important et qu'il qu doit vraiment participer à, à, à au, au, processus de, de changement. Donc, et souvent, vous laissez Euh, cette initiative aux acteurs politiques Vous pensez que ça un geste naturel et euh, D'encourager les, citoyens à aller retirer leur carte euh, En tout cas, nous, Yanamaris, à chaque fois que de besoin ou à chaque fois qu'il y a des élections, nous avons eu à, à, à organiser euh, cette campagne-là pour davantage dire aux populations que votre voix se trouve dans votre carte. Donc, euh, impérativement, il faut aller les pour vraiment participer et, euh, bon échange les élections. Avez-vous une idée sur, euh, de Thiès oh, euh, à Thiès, à la préfecture, il y a 55% de, de retrait. 55, donc 45% n'ont pas encore retiré leur, leur carte d'électeur. Donc, et, et ce serait vraiment bien que, que tout le monde aille, aille retirer sa carte pour, pour euh, pouvoir participer. Ah, vous la question. Oh ah, merci. Coordinateur, si voilà, rapidement. Euh...